asalaamaaleykum mbokk yi dal nag jàmm ci seen émission stop coronavirus tey ji nag euh, dañu dalal euh, ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu euh, aar du aar daal bëri na ay pàcc xëy na ñoom dinañ leen gën a wax ci lan la ñuy yëngu ki ñu njëkk a jox kàddu gi nuyu ko mooy Ndeye Roxaye Gueye nekk Green Art Ndeye Roxaye maa ngi lay merci Rosalie maa ngi lay fay. Mhm. jërëjëf si invitation bi. suñu beneen invité di Abdou Ba Abdou nekk ci laboratoire AGITAR. waaw euh, ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant si dalal bi ngeen ñu dalal. Mhm. suñu beneen invité moom ci kanam dinañ ko jox kàddu gi muy Amy Gningue bàjjanu gox nekk laboratoire SARA bu institut des sciences de l'environnement bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru euh, Ndeye Rokhaya Green Art mooy lan pourquoi Green Art. Euh, Green Art. dafa dajale sama ay naataango yoo xam ne dañuy liggéey ci art et environnement lépp luy problématique ci environnement bi par rapport ak crise bi ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ne bari na lu soppeeku ci dundin bi par rapport ak euh, suñu milieu de vie gis nañ dérèglement yu am sur le plan climatique gis nañu corollaire de yooyu si dëkkuwaay bi gis nañ kër yu bari yu nekk ci booru géej bi yoo xam ne géej bi daf leen nar lekk commencé na leen lekk gis nañ problème yu mag yi ñu am pour gérer déchets yi dañuy consommer lu bari après sànni lu bari après li ñu sànni duñu xam nuñ koy def ci ñun am na si ay artistes yoo xam ne justement lu bari lool ñu sànni lañuy ñuy récupérer defaat si ay liggéey yoo xam ne mun nañ ne liggéey artistique la mu dellu si waat si euh, circuit bi waaw euh, Abdou euh, Ba nekk laboratoire Agitar ndax mën nga ñu xamal lan mooy Agitar lan mooy yëkkati Agitar Agitar ci lan lay yëngu loolu dina yomb wax ndax laboratoire Agitar moom ku ko xamul mës nga ko dégg ndax kuréel la goo xam ne yàgg na ba ñu ko sosee mag ñee ko sosoon euh, boobu ëpp na ñeent fukki at léegi euh, la ko taxoon a jóg nag mooy ba tey lu defar pénc mi ndax dañu xalaat ne aar boobu nga dégg ci tur wi ñu dàkkantal ko ci dafa fekk ni ñun dañu xalaat ni itam euh, nekk na loo xam ne dana dana gën a yombal li nga xam ne moom la mag ñooñu ko sosoon doon xalaat ngir mën a defar penc mi su ma ne penc mi nag mooy réew mi rek. donc soo koy seet euh, fa mu suqe ko mag ñooñu du ñu woon sax ay artistes wande su ma waxee ne euh, su ma waxee mun naa wax sax ni ñoom mun naa lañ tudd ay révolutionnaire parce que dañu demoon ba la ñu jàng ak la ñu xam ak yépp dañ ko def en crise dañ ko dañ ko dañ ko togg ngir mën ci génne loo xam ne ñoom si seen gis-gis dana fexe ba suñu réew yi moom seen bopp réellement parce que kuy wax moom sa bopp day fekk nga xam yow yaay kan foo jóge ak foo jëm ñoom nag ci loolu lañ doon dox man mii di wax ak yow bokkoon naa ci ndaw ñi àndoon ak ñoom ba yàlla def tey ña ëpp ci ña ko sosoon dem nañu wujji seen borom man mii maa fi des moo tax ñoom xale yi ne man maay seen aîné tey mais moi j'étais le cadet des aînés et avec le temps euh, ak euh, àddina di dox ba tey ma bokk ci ñi mag donc léegi ñun euh, soo koy seet si si si sunu trajectoire laboratoire laboratoire soo ko buggee définir si tubaab walla si wolof tubaab daf naa c'est un lieu clos mooy maanaam foo xam dañ koy tëj di fa xalaat ak di fa sos moom itam dafa nekk lieu boo xam ne itam dafay am li ñuy wax contamination parce que laboratoire en général soo ko xoolee ñooñu dañuy sol ay blouse yu weex euh, di sol ay gants. Mhm. comme tey ni nit ñi di soloo di dox ci biti ndax virus boobu sonal ñu lool tax ba ñëpp di sol masque di sol gants bu njëkk nag si biir laboratoire lañ daan solee loolu moo tax ñun suñu kuréel ñu tuddee woon ko laboratoire agitaar maanaam euh, euh, espace boo xam ne du nag espace physique rek dafa nekk itam espace mentale maanaam xalaat yi fu ñu koy sose mu nekk foo xam ne suñu fa ñëwee dañuy seet penc mi lan ci moment bi ñuy toog di waxtaan moo fa gën a solal penc mi ñu xool loolu ñu ci am xam-xam joxe ci seen xalaat ñu boole tënk ko mu nekk maanaam euh, comme su ma doon wax rek mu nekk téere parce que téere moom du lenn lu mooy fu ñuy denc. Mhm. si arab mooy kitaab mooy foo xam ne dañ fay denc. maanaam mën naa nekk téere moo tax euh, bi mbas mi amee itam ñun ñu topp xale yi nga xam ne euh, toll na jamono ñu mel ni ñoom day roxe ñi euh, amoon na benn kuréel gu ñu gu sosoon ñun ci ay jamono ci la ñoom ñii nàmpe ba tey ñu nekk lii ñu nekk taxaw seen taxawaay bii ñu taxawee moo tax ba mu wooyee ne mën nañ ñëw itam dama ànd ak moom ñëw wante ñun daal soo buggee am tënk laboratoire Agitar daal kuréelu xalaat la waaye nag duñ ca yam dañuy xalaat waaye nag itam dañuy jëf ce sont des acteurs actants. Mhm. cest à ñuy xalaat di jëf. Mhm. waaw mu mel ni nag comme ni ko pàcc yu bëri ci askan bi defee ba mbas mi euh, ñëwee ñu bëri dañoo euh, bàyyiwuñu lu ñu doon def mais dañoo boole xeexu mbas mi ci lañu doon def def ko seen moomeelu bopp ñu dem ba dégg green riposte euh, green riposte ça ma fait penser à green art euh, ma bëggoon day roxaay rek nga wax ñu initiative bi green riposte ñan ñoo ko sos ak lan lañ ciy séentu euh, donte ñëpp xam nañ ne li ko yëkkati moo di xeex mbas mi di Covid 19. waaw comme ay artistes lañu début bi bi mbas bi accès état bi dafa jël responsabilité am parce que xamagul lan la kenn xamul lan la. ñu tëj bépp espace privilégié particulier boo xam ne ñun ñiy yëngu ci mbirum art dañ fa doon daje lu mel comme théâtre yi lu mel comme galerie yi musée yi centre socioculturel yi ñëpp dem toog seen kër di xaar ñun du ñu ñuy xaar problème su amee artiste mooy ki nga xam ne bokk na bokk ci acteurs yi nga xam ne dañuy dañuy impulser ay valeur euh, bi loolu amee ñu xam ne li communauté bi soxla ñun aar communautaire la ñuy def defuñu aar boo xam ne da ngay taxaw fu kawe di xool beneen xool ñeneen yi comme su fekkonte ni yow si li ngay yëngu dafa war a nekk loo xam ne ñeneen ñi mënuñu si jot parce que amuñu caabi ji parce que demuñu école tubaab bi ñuy woowee beaux buy joxe diplôme buñ la tàggatee donc ñun aar boo xam ne day wax ak communauté bi amul benn mystification mi ngi ci mbedd bi fépp donc alternative la woon que ñu wone ne tëj galerie tëj musée tëj théâtre mënul empêcher expression artistique mu am parce que en Afrique tout se passe dans la rue lépp luy xew ci mbedd bi lay xewee donc dañu delloo aar bi place am et mbedd bi la donc du coup ñu def projet fagaru green riposte am na wolof am na anglais am na français donc juste pour wax ci démarche multidisciplinaire bu ñu nekk léegi ñu utiliser support mur utiliser support marché pour jéem a euh, euh, tas information bi parce que problème bi bi mu amee ñu mel ne man ñu mel ne yow facilement dañuy xam lu xew parce que communication bi c'était à not niveau peut-être que am na ci askan bi ñu nga xam ne àggul woon torop seen niveau parce que ñun ñëpp dañuy dem marché et suñ demee marché gis nañ comportement yi donc doo xam est-ce que information bi agsiwul si ñoom walla walla est-ce que dañu nekk si déni donc euh, ñu dugal fa suñu loxo ànd ak relais communautaire bàjjan gox euh, pour sensibiliser pour fàttali lan mooy geste barrière yi naka la mën a nekkee si marché bi euh, en gros c'était ça. mm waaw ma bëggoon xam aussi euh, ci projet boobu ngeen sos euh, Green Art euh, laboratoire Achitar ban ban ban ban wàll la ci am quel a été son rôle ci mhm. mise en œuvre projet bi ak ci exécution action yi nga xam ne def nañ ko sur le terrain mhm. waaw waaw ñun ñun xam nga ñun lu ñu lu ñu woo rek la ñuy dem mhm. suñ ñu laajee ñu tontu suñ ñu laajul tam ñu ne tekk même suñu xamee wante ñi nga xam ne ñoom dañuy gëstu si toolu xam-xam si mbiru aar dëgg parce que aar nag dëgg ñun si laboratoire Agitar dañ ko doon définir comme étant l'éternité d'un geste moral donc il faut nga mën a teg loo xam ne dina jëriñ askan wi moo tax ñii ba mu door ba ñu dooree ñoom li mu fàttee wax doorewul woon si green maanaam mesure yi mu mujjee tey dafa amoon projet boo xam ne c'était li mu doon wooyee réenchanter le couloir de la mort qui la route qui va de de de la route de Wakam jëm biir université moom la ñuy wax couloir de la mort moom dafa toog xalaat mu ne waaw couloir de la mort bi ah parce que biennale bi mu ngi ñëw euh, suñu jëloon benn projet réenchanté ko def ko ba mu nekk couloir de la vie mm-hmm. muy projet bu mag ñu waxtaan ci nekk ci di ci liggéey man ak moom ak ñeneen euh, si diggante bi ci la waxi euh, coronavirus di ñëw ñu ne ah donc on va réarticuler la démarche parce que foofu la waroon doolee moom donc bi mu réarticuler la démarche jëm vers li ñuy def tey ñun dañu ñun tamit dañu réarticuler suñu taxawaay ànd ak moom jëm ci lii muy liggéey wante yemuñu foofu parce que ñun dañu bëri euh, euh, suñu kuréel gi mënuma laa wax sax ñaata lañu man mi ci bokk mënuma laa limal ñu ci bokk ñëpp waande am nañu ñoo xam ne wóor na ma ne dañ leen identifier parce que ñoom ci ndorol yi lañ bokk moom mii ci la bokk ak ñi mu àndal euh, euh, waa espace Médina ñoom Cheikha nga xam ne espace Médina moo doon kër Mamadou Traoré Diop mi bokkoon ci mag ñi sos laboratoire Agitar moom ak Jowakam kon moom itam place am boobu di espace Médina dafa nekk ba tey laboratoire Agitar ñoom itam ñu jël seen position Médina yëpp di ci ëpp ñoom ñoo fa njëkk commencé di defari masque di ko jox nit ñi di wër ci quartier yi di expliquer geste barrière yi soxna si doon wax léegi. Mhm. Euh, gis naa itam na ñoom loolu law na ba ci mujj gi tailleur yi Sénégal yëpp jóg taxaw di defar ay masque muy lu ñu naw lool parce que soo xoolee ci àddina fi mu toll yëpp euh, réew yi ñuy yëpp ñi ñu wër euh, ñi ci nekkoon ci aar. te am alal fecc nañ seen alal def ko ci xeex bi ñi nga xam ne dañu nekkoon dans les parfumeries et tout ça dañ commencé di defar ay ay ay euh, gel parce qu'ils avaient de l'alcool dans la parfumerie donc ñu commencé defar ay gel di ko maye donc dafa indi beneen genre dundin dañuy wax économie du don àddina dafa wëlbatiku commencé di maye ndax virus boobu loo xam ne mën na laa dal te doo ko gis te su la dalee nga am alal walla nga ñàkk ko Euh, euh, yenn bokk àtte rawatina nag ñun réew yi nekk fii nga xam ne dañoo yéexoon ci defar suñu système de santé ba tax ku feebaroon da doon dem bitim réew toog na léegi ñetti weer ku feebar fi ngay fajo mm-hmm. kon nag day am euh, réaction naturelle si être humain boo xam ne nag rôle homme d'art véritable da ngay nekk li ñuy wax avant-garde donc parce que fii dañuy jaawale defar tableau jaay wala defar cassette jaay loolu du aar euh, mën nañ euh, loolu ñun dañ daan yuuxu si kaw ne aar boobu baaxul aar bi baax mooy aar biy defar pénc mi mm-hmm. waaw mën nga am nag moyen boo utiliser pour la ngay wax ñu mën laa dégg musique dafa mel noonu soo ko wéyee ñu dégg la donc mën nga ca jaar euh, tableau peinture dafay liggéey boobu liggéey waaye man si riposte bi ma gis nii ba tey dama gisul euh, ñi nga xam ne ñooy mag ñi ci mbiru musique si Sénégal boog laay wax de gisuma itam mag ñi ci mbiru aar ñu taxaw ñi ma gis ñu taxaw def liggéey bu ñu war a naw war ko wax ca kaw ñépp xam ko mooy ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ay graffeur lañu ñoom nga gis ñu investir tali yi dans les gestes barrières devant les boulangeries et tout ça avec tous les risques te laaj ñu kenn dërëm mm-hmm. loolu lu mat a wax la te mooy ñii itam li ñuy dox ndax laajuñu kenn dërëm dañu ñëw investir dugg di liggéey waaw ba indi itam résultat parce que société euh, conscientisation nit yi da ngay seetlu sooy dox si ndakaaru léegi ñu ci bëri dañu yor masque ñu ci bëri dañu yor masque soo demee ci marché yi ñëpp yor masque ñëpp ngi def geste barrière pourquoi parce que dafa am ñu ko liggéey. parce que soo xoolee euh, euh, euh, les tableaux d'affichage normaux yi nekk si dëkk bi ba tey amul soppeeku lañ daan affiché la ñuy affiché. Mhm. ñu ngi wane oto yi ñuy jaay xeesa li ñuy jaay yooyu la ñuy wane. wande wane wuñu pour nit ñi mën cee jàngee te nit ñi jànguñu tubaab ñii mënuñoo bind mënuñoo liir donc ci ay gestuelle rek nga leen mën a yóbbu waaw kan moo gën a mën gestuelle su dul homme d'art yi nga xam ne ñooy ce qu'on appelle les plasticiens. Mhm. moi je les ai pas vus. man gisuma leen bokk xanaa yow nga gis leen man gisuma leen ñu génn investir ni ma gisee xale yi graffeur yi def ko ak ni ma gisee association de quartier yi yu mel ni ñoom espace Médina ak tailleur yi investir dugg ci liggéey bi ba yegg ci fuñ ci yegg tey. Mhm. moo tax ñooñu dañu dañu mat a dañu mat a euh, euh, tàccu dañu mat a euh, siiwal ñu xam leen. ñoo ñuy wax docteur ak ñu mu xamul ñooñu mhm. noonu. dañ leen war di leen wane ñu xam ne ñii c'est de véritable. Sénégalais docteur lundi rek moo fi nekkoo alhamdulilah rabbil alamin di wax ci li mu doon def ci les marquages au sol Médina liggéey yi mu fa def yépp il était là lundi mon invité. alors waaw kooku nag noo ko mën a tey nga nga xool kooku liggéey ba mu liggéey nga xool mag ñi nekk ci musique dem ministre ba ñëw seet si leen ndax loolu faaw ma wax ko ndax ma mën a xari mhm. amul lu ñuy wax lu mooy fayal leen ñu sunu. sunu ay facture ci période bi ñu nekk waaw yow nooy def ak ñooñu. Mhm. yow nga waroon a jaaye li nga am def ko ci. ndax virus bi bés bu ñëwee ba déstabiliser système économique bi yow mi am alal ak man mi ko amul ñooy bokk yam ndax sa téeméeri million day nekk dërëm. Mhm. waaw ndax gis nañ loolu. looloo tax euh, euh, soo demee ci yeneen réew yi ñi am alal c'est pas par générosité mais parce qu'ils savent aussi que si on trouve pas des formules pour bloquer ça. Euh, le résultat sax le même pour tout ñooy bokk ñun ñëpp ñooy bokk àtte. Mhm. loolu moo tax euh, dama ragal ni euh, liggéey yu mel nii yii ñoom nday raxal yi def ak ñii mel ni ñoom lu mat a siiwal la ñun nag laboratoire digital loolu mooy suñu rôle. ndax aar bi ngeen di dégg ci biir aar lañ mës a utiliser théâtre utiliser nañu théâtre lu bëri lu mës a xew ci suñu penc mi théâtre nañ ko moom lañ doon wooyee Pléanof xaw ma ndax yow boobu ndaw nga mën naa am wande dañ daan def ay Play-An-Off at bu jot mois d' octobre dañ ko daan choisir jël benn place seet la gën a interpeller suñu société ñu théâtre ko pour wane ni ñun fii lañ ci toll loolu la ñu dox ba ba ñuy sos mbiru set setal fee ca ñaay cokkeer bañ ko sosee ba pare politiciens yi ko nangu ci ñun waa ndi ñun ñoo ko sos parce que ñun ñun ñun ñaay cokkeer lañ ko sosee ñoo jël peinture jox ko xal yi ne leen fii yéen a fi dëkk defar leen ko loolu moo jur phénomène u set setal boobu ngay dégg ku ne naan maa ko dox c'est nag ñun la ñuy dox dañ koy dox pour askan wi utuñ ci kuñ ci xam man tey laa mos a ñëw si si rajo bi di wax mbiru laboratoire digital saa yu ma ci mosee dem sama waxi bopp laay wax mm-hmm. waaw waaw balaa ñu ñëw ci euh, Badiane euh, Ndeye Rokhaya euh, Green Art ak Agitar ak laboratoire Sahara bu université Cheikh Anta gannaaw ba ñu lëngoowee sos lii di Green ripost est-ce que jot ngeen def benn phase d'expérimentation fenn pour ñu natt empleur bi mu joxe ndax résultats yi ngeen ci doon escompté jot ngeen ko ci am. mun nañ ne waaw projet bi mi ngi dox jeexagul. donc defaguñu bilan final mais suñu defee suivi wu étape bi ñu toll mun nañ ne am nañ beaucoup de satisfaction parce que déjà bi ñu jëlee mur bi ñu peinture ci muru marché la si ginnaaw mur bi douche marché bi moo fi nekk donc non seulement dañu identifier ay gestes barrières yu spécifique ak kiy liggéey si biir marché bi gis nañ si affiche ministre de la santé peut-être de façon symbolique cinq gestes barrières moo si ne c'est important on va retrouver ça partout mais ku nekk si sa métier si sa domaine d'activité wala si sa vie de famille dans la maison ku nekk war nga identifier yeneen geste barrière dafa bari jeexul donc euh, par rapport ak marché bi par exemple ak bàjjan yi aidé nañ ñu ñu identifier par exemple weccit bi xànjar bi noo koy isoler stériliser ko ak eau de javel biais biais bi tamit nga xam ne papier la am nañ ci ay idées yu bëri donc vraiment def nañ benn travail de laboratoire bu ñu permettre ñu identifier yeneen nouveau geste barrière yu ku nekk ci marché bi mën a adopté vu que distanciation physique mënul nekk dans nos marchés traditionnels euh, lan mooy euh, li ma bëggoon na xam mooy ndax phase d'expérimentation def ngeen ko euh, ci yan bërëb ak aussi euh, en retour gis ngeen ci résultat bi ngeen doon escompté. est-ce que natt ngeen porté bi. peut-être début bi dañu yaakaaroon médecin yi rek ñooy ñëw ñu apporter seen pierre de touche c'est bien c'est important on est content mais ñun dem nañu jardin botanique bu faculté de médecine. jardin boo xam ne genre musée la de conservation des espèces médicinales donc garab yi ñuy faj garab yooyu lañ fay conserver ñun dem nañ fa ñu yóbbu fa aar fecc dem nañ foofu ñu fecc parce que si thérapie si mbirum faj pour ñun culturellement fecc dafa important soo demee si lébu yi feebar su amee dañuy ndëpp et si cadre ndëpp bi dañuy fecc donc réponse bi nekkul rekk di ñuy xaar médecin yi ñu joxe ko mais peut-être ñun si mémoire suñu société bi culturellement parce que feebar bi dafa tax ñëpp jaaxle ñëpp ragal kenn xamul looy def et faju tamit si dalal xel la xol après yaram bi ñëw donc on a pensé en en utilisant des cordes comme ça en convoquant le registre de la danse donc euh, mun na apporter dara et ça a eu portée bu mag parce que ay compagnie de danse ay xale yu jigéen la les les héroïnes d'Afrique donc euh, elles étaient un groupe de dix filles te ñu introduire benn góor boo xam ne mooy jouer rôle virus bi ñu wane idée wu chasse parce que chasse tamit dafa bokk ci suñu culture on est de la charte du Mandé et charte boobu c'est la charte des chasseurs c'est vieux comme le monde et charte boobu dafay wax toute vie est une vie donc virus bi même su nekkente ni lu nuisible pour ñun être humain yi c'est peut parce que dafa jóge ci environnement boo xam ne bosam la woon mu dal fudul environnement wam et que sooy xool pronostic yi nga lire li ñuy bind ci virus bi ak li xew ci virus bi tu te rends que ne du loo xam ne suba mu jeex loo xam ne la amaana fi la nara des ak ñun il faut ñu jàng nu ñuy nekkee ak moom mm-hmm. donc de façon abstraite ci chorégraphie ci danse si gestuelle du corps on est arrivé à montrer cette idée de chasse dafa important peut-être état état bi guerre le utiliser peut-être état bi métaphore u soldat la utiliser ñun en parallèle on a proposé métaphore u chasse on a convoqué la charte du Mandé on a convoqué attitude u chasseur bi donc costume bu chasseur bi di sol suy dem mu jànkonte ak euh, ak yeneen euh, yeneen espèce vivante respect bi mi am ritualisation bi si am yëpp donc nu par la danse art thérapie on a aussi essayé de de formuler une réponse mm-hmm. waaw euh, damay euh, nuyu suñu euh, ñetteelu gan bi Amy bàjjan ami Gningue badianu gox nekk laboratoire Sahara bu institut des sciences de l'environnement bu université Cheikh Anta Diop Badiane maa ngi lay nuyu. ok maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox aussi seen wàccuwaay di nuyu sama frère bu ma fekk fii. Mhm. maa ngi koy nuyu baax di ko jox wàccuwaayam di la nuyu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu nag Ndeye Rokhaya di ko jox wàccuwaayam ba baax a baax a baax a baax a baax du nuyu nag fa mu jógee mm-hmm. yëmbal laa jógee yëmbal sud yëmbal noor mu ñaari yëmbal dañ ma seq may nuyu monsieur le bu yëmbal noor du nuyu monsieur le bu yëmbal sud du nuyu suñu médecin chef Pape Samba Dieye maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam du nuyu équipe cadre bi mu àndal yépp ci lii ci liggéey bi maa ngi nuyu tamit sama poste santé Gallo ja du nuyu Aïssatou Thiam bi nga xamante ni ne moom moo fa nekk suñu maîtresse sage-femme maa ngi koy nuyu bu baax baax di ko jox waa ci waam du nuyu itam bàjjenu fa nekk yëpp yëmbal yëpp fii maa ngi fi toog bàjjenu goxu Sénégal yëpp du nuyu tamit Ndeye Fatou suñu présidente nationale du nuyu professeur Niang bi nga xamante ni ne moo nu saytu ñu nekk ci équipe am Sara maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit ak équipe cadre bu mu àndal yëpp di liggéey maa ngi di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di delluwaat di joxaat Ndeye Fatou nuyoo bi mu jébbaloon ma ko professeur Niang man bàjjan Ami Gningue bàjjan laa boo xam ne mbas mi yàlla daf ma xiir ma liggéey ci liggéey boo xamante nii ne am naa yaakaar ne Sénégal yëpp buñ ko déggee dinañ kontaan ci liggéey boobu parce que jamono bi nga xam ne mbas bi tar na ci sama gox muy yëmbal dama ci ànd ak sama médecin chef ànd ci ak sama maîtresse muy Aïssatou Thiam ñu jàppale ma lool nag ak bàjjen gox yi mbas mi dugg yëmbal bu baax a baax a baax a baax ba nekk fa téeméer ak lu topp ah yàlla dogal tamit téeméer boobu ak lu topp boobu yëpp nga xamante ne moom moom moo xew yëmbal sud ak yëmbal noor ñu seddoo ko yàlla def ñeenti nit ñoom la ci yàlla jël seen bakkan may jàlle waa yëmbal yëpp aussi tamit di leen bokk ak yéen ñoom naqar wi baax a baax a baax bokk ak ñoom métit bi may ñaan yàlla mbas mi suñu borom teggi ko dañ daan def bu fekkee ne benn cas am na man ak tant que bàjjan damay jóg woote sama médecin chef woo Abdou Seck ma jaar maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom tamit ñu jàppale ma saa yi ma leen woowee dañuy jóg équipe cadre bi yëpp ku ma ci jot bu ma la woowee ne la ba place tel am na signe bi ñu ma ko fay wax nii la demee nii la demee dañuy jóg ñëw jàppale ma ba nga xamante ba yàlla dogal. sama gox bi nga xamante ne moom moo amoon feebar bu bari bi yàlla dogal yàlla arrêté foofu ba amatu ko. Euh, ñu gis nag de façon générale euh, bàjjenu gox yi dañoo impliqué trop ci riposte communautaire bi. Mhm. waaw waaye bu weesoo li nga xam ne moom la acteur communautaire yi di def gis nañ tey ne artistes yi ñu ngi ci dugal seen loxo. lu euh, ci mel ni tey green riposte buñ koy wax. Mhm. forcément mënuñu ñàkk xalaat ñi yëngu ci wàllu aar waaye comme ni ko ab Abdou waxee aar dafa yaatu tey jii nga nekk liggéey ak ñoom yow lan nga ci jàngat lan lu positif loo xam ne gisoo ko woon en ban visage bu bees nga découvrir ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu aar dolli nañ ma xel bu baax a baax dolli nañ ma dal dolli nañ ma fit wan nañ ne ma xeex boo ci nekkee tant que gañu woo doo arrière loolu foofu laa ko jëlee ci ñoom ñu àndandoo ko liggéey ko nag def ci terrain bi dix jours ci weeru koor gi mu tàng jër tar lool ci weeru koor wi ñu ànd ko man ak ñoom ak Ndey Faatu ak professeur Niang ak benn xale bu góor bi ñu naan Abdou ak moom mi tamit Ndeye Rokhaya ak équipe am yëpp ñu àndandoo ko 10 jours ci koor gi mu tàng jër ñu nekk ci amul arrière avancé ba yàlla dogal 10 jours yooyu jeex ñu commencé waat duggaat ci marché yi ma ànd ko ak moom mu ànd ak yar lool nag ak dal comprendre ñu ñun ñi nga xam te ay mag lañu bu ñu sonnee sax duñ ko yëg ndax dalal bi mu ñuy dalal wax ndànk bi mu wax ak ñun. tey bi muy wax ak ñun moo foofu lañ ko jëlee ci moom ñu ànd dem marché Thiaré pàkk ba def nañ fa liggéey bu mucc ayib waxtaan ak délégué marché bi boole ko ci mbir mi xamal ko ne ko ci mbir mi nga bokk wan leen ni ñuy raxasoo wan leen weccet wi ni ñu koy defee ci pot may leen ko tamit ndax Ndeye ya dafa indaale matériel bi nga xamante ni ne moom lay may waa marché ba muy gel saabu përngal saabu liquide eau de javel euh, lépp li nga xamante ni ne jumtuwaay dem def joxe nañ joxe nañ sax ba joxe vinaigre blanc ndax rek bëgg nit ñi mucc ak carbonate lépp def nañ ko pour loo xamante ni luy aar doomu aadama yi ci marché bi la ñu may leen ko wan leen ni ñu koy defee waxtaan ak ñoom yendu ci marché bi ba ngoon jóge foofu dellu dem centre course marché centre course ñun ni fecc nañu waxtaan nañu ak waa marché ba moom mi ànd ak équipe bi mu àndal defar na fa duus may leen ko defar fi ñuy raxasoo may leen ko may leen ay masque loo yàkkaar ne jumtuwaay la rek boo xamante ni ne nit ki mën na ko jëfandikoo ba yàlla mosal ko ci mbas mi ñoom arm boobu jël nañ ko taxaw jàmmaarloo ak feebar bi. waaw euh, Abdou Ba euh, li nga wax sànq dafa dafa des sama xel parce que nee nga euh, fi ci fi ñu toll ci mbas mi ci réew mi ñiy ñiy woote wala ñiy wuyoo wokk turu aar dañ cee waroon dugal seen loxo dañ cee waroon dugal seen loxo bu baax te ne nga gisoo ñu def ci loo xam ne lukki na sa bët. à part li nga xam ne ñoom day roxee ñu ngi koy def ñoom docteur ñu ngi koy def di wane expression bu bees di sensibiliser seeni ay population mais ma bëggoon xam ndax ca ndorteel la ba njiitu réew mi euh, doon woote di woo euh, euh, les communicateurs traditionnels di woo homme politique yi di woo rappeurs yi est-ce que parce que xëy na rëcc na ma est-ce que woowoon nañu les hommes d'art artistes yi wowoon nañ leen ci genre ci concertation boobu pour xam naka la ñuy ñoom dugalee seen loxo ci xeex mi parce que on voit que ils se sont vraiment distingués en tout cas les jeunes man gisagum naa leen ñi ma fi jot a invité dugal nañ ci seen loxo. waaw mais ñooñu nga wax euh, jeunes yi ci dugal seen loxo ñooñu ñoo nekk ci aar parce que xam nga aar euh, euh, le le le caractère premier c'est d'être mooy nga mën a occuper les espaces libres si tu es incapable d'occuper les espaces libres en vue de les transformer nekkuloo ci aar donc xale yi ni ñuy def ñoom ndonte buur woowu leen mais buur dafa woote moom wàllam mooy woote woote na nee na ñëw leen wax na résilience man sax xaw ma loolu mooy lan yërmande daal. Mhm. nee na nañu am yërmande. maye na ceeb euh, gaa ñi jël ceeb tout ça mais dans le même temps xam nga àddina dafa toll foo xam ne. àddina moo toll foo xam ne amul benn buur boo xam ne mën ngaa yanu sa réew di ko doxal il faut waa ñuy nekk ci réew ma di fa juddoo euh, di fa di fa noyyee nekk fa dëkk fa ku ci nekk la fay sa responsabilité nga nangu koo jël doo xaar nag ñu woo la ci mm-hmm. ndax loo bokk doo xaar kenn di la ci woo da nga fa war a jiitu man li ma wax mooy mag ñi nga xam ne Euh, euh, état li ñuy wax état Sénégal nguur gi boo defal na leen lu nekk bañ ca tollee fayal na leen ñu dem jàngi ndax Senghor da daan fayal artistes yi ñuy jàngi mu leen di yóbbu ñi Vienne ñii mu yóbbu leen Amérique latine am ñoo xam ne fa lañ lang ba tey ñoom Iri Camara nga foofa ñooñu ñëpp mag ñooñu euh, ñu ñuy wax waa école de Dakar dañ leen jàppale woon ba ñu taxaw ñi topp ci ñoom nekk tey fii ci village des arts bii nekk ci campement chinois bii ñi nga xam ne chinois yi foofu lañ ñëw ci diir bu gàtt ñu tabax lu day ni stade boobu ngay gis ci baraquement yooyu ñu ngi leen ko jox léegi mat ñaar fukki at ñoo nga fa ndax da leen gis ci xeex bi te eh, ñoom buur buur moom moom foofu moo leen fa dalal ñu nekk fa fay ñu ndox fayu ñu courant eh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo tey investir réellement ñi ngay wax ñi ñëw fii lan la leen buur defar école des arts sax amatu fi terewul même ñi ci génn si école yooyu noonu doo da bugg sax fu ñu toog sax pour dessiner sax duñ ko am dañu taxaw di tumuranke bëri xam-xam ba ba pare di tumuranke te réew mi tey kenn mënu koo tabax su fekkee ne da nga ko bugg a tabax faaw nga dellu ci culture culture nag mënul génn ñun ñooy ñan ak lan lañu am ce que l'on est et ce que loolu mooy culture mhm. waaw léegi nag suñu waree tabaxaat réew mu bees parce que yora aura forcément un avant coronavirus et un après coronavirus dorénavant ku ci nekk li ñuy wax naan ku wàcc sa ànd ak yooyu yooyu waxuma loolu sax man dama ne ku ci nekk tey kenn du ñëw tabaxal la sa réew kenn du ñëw xalaatal la sa place soixante ans ñu ngi jéem a ubbi sunu buntu kër ak caabi ñeneen moo tax ubbeeguwul ba léegi. Mhm. bés bu ñu génn gis suñu bunt suñu caabi faaw ñu dellu suñu culture xale yii li ñu def nii loolu la suñu culture maye loolu la suñu aada maye parce que li ñuy wax ñoom tey économie du don nga xam ne su nouvelle forme euh, qui est opposable d'ailleurs au capitalisme et au socialisme ah ñu ñoom ñu ngi koy xalaat ñu ngi koy bind. Euh, am na ay anglais yoo xam ne bind nañ ci lu bëri ci mbiru économie ci loolu euh, loolu nag ñun dafa bokk ci suñu vertu mooy suñu vertu premier. mooy maye mbaax ñii li ñu wane mbaax lu tudd soxna si li muy def mbaax lu tudd di wër marché yi euh, euh, euh, est-ce que wax na mës ngeen dégg mu taxaw fii naan aw ma financement machin un milliard dégg naa ministre de la culture génnee na milliard ak lu teg maa ngi gis ci journaux yi ñoom ñëpp ñuy xuloo ñii naan ñun ñoo ko war a jot ñun ñoo ko war a am waa xale yi nga xam jël risques yi nekkoon ci tali bi nag di defal liggéey boobu ñoom docteur ak ñooñu ñooñu nag ñooñu ñoo ñoom dañ cee bokkul ñooñu ñoo ko ñoo ko mérité tailleur yi nga xam ne ñu ngi woon fii di defar ay masque di ko maye ay Thiès ay fune nga koy gis ak sa bët et puis en plus euh, ñu def ci design bu rafet parce que aussi il faut voir que les masques sont très designés mhm. moi je vois les jeunes filles dans la rue mais c'est fantastique elles mettent des masques de toutes les couleurs euh, les formes ñooñu xale yooyu designer lañu loolu mooy design du leneen lu mooy fent dañuy fent ay mbir mhm. ñëw teg ñooñu noonu euh, euh, kenn fayu leen benn benn sax laa gis après politicien parce que politicien dafa bëri xam-xam xam ne lii bunt la. Mhm. ñu ñëw jënd ko di ko maye. mais xale yi ñoom ba ñuy doon dañuy dagg rek di maye. pour sauver seen bopp. parce que tey il faut ñu xam ni virus bi du fi jógee noonu ku la wax ne mën na ko fi jëlee noonu ay wàññeeku nag euh, gouvernement mënul lu mooy su tëjee réew mi ñetti weer xanaa dina ko ubbi su ko ubbee président ba ba muy wax daf ne ubbi naa ko waaye protéger leen seen bopp. Euh, ça veut pas dire ubbi naa ko sa mbox loolu leen dellu leen ci li ngeen doon nekk ñi liggéey bi loolu tax mu am solo liggéey ñoom ndeyroo xaye yi euh, sensibilisation bi il faut que davantage ces types d'associations soient aidés parce qu'ils parlent de culture mm-hmm. donc ministère de la culture la ñu interpeller directement pourquoi prendre l'argent euh, jël xaalis bi ñu moom ñun ñëpp si suñu gafaka di ko jox ñoo xam ne Eh, nee nañu li ma jàng ci mag ñi dama ko jàng ci am na ci kenn si ñoom ku ko bind si journal ma jàng ko nee na ñoom dañu waroon def biennale de Dakar ñoom dugal nañ ci seen koppar nee nañu pour préparer biennale man yàgg naa ci de mosuma gis ku dugal kopparam ci pour préparer biennale loolu mësta am nee na dañ ci dugal seen koppar léegi biennale ñu annulé ko donc euh, milliard et demi boobu ñu leen jox dañ leen ci war a dàmpe daal dàmpe leen ko. Mhm. waaw loolu loolu loolu loolu loolu nangu ko yow loolu loolu mën nañ ko nangu. Mhm. ci fi ñu toll. te xale yi ñoom waxuñu wax bi kii li mu doon liggéey biennale la jëmoon biñ ne biennale amatul dafa taxaw bàyyi liggéey boobu wëlbati ko dem dans la défense ñëw au devant avec le risque de prendre le virus parce que ces enfants ils dañ doon dem ci biir marché yeeg fu nekk ndax euh, soxna si seede na ko léegi dugg ci biir marché yi ku ko def euh, yaa ngi jël risque ñoom docteur ak ñoom li ñu doon def devant les boulangeries tu vois les files et tout ça euh, dañ jël risque est-ce que ñoom dañ ci xalaat seen bopp soo bëggee def aar nag da ngay fàtte sa bopp ba pare parce que gis nga artiste la muy defar muy génn mooy la gën ca moom. Mhm. parce que nit day am lu baax am lu bon bon la gën ci yow mooy génn si sa tableau soo ko deful tableau la gën ci yow mooy génn ci liggéey bi ngay teg moo tax lii nii dañ ko war a siiwal ñu xam ni fii am na fi ay kuréelu ndaw. ñoo xam ne suñu ay jarbaat lañu ak suñu ay sët yoo xam ne def nañ fi liggéey boo xam ne dañ leen war a jàppale ngir ëllëg ndax virus bi du fi jóg te liggéey bi dafa war a continuer mm-hmm. waaw bu ñu fi nekk nag di déglu ay xuloo maa ko waroon a jot ak kee ko waroon jot ñoom waru ñëw jot dara soo buggee ma wax sama xalaat waaw ñoom waruñu leen jox tous képp koo xam ne jógoo fi euh, def volontariat comme ni ñu ko defee parce que buur neewu leen defal leen ma nangama ah. man xam naa ay artistes yu mag yoo xam ne dañ defar ay tableau penture jaay ko ONG 6 millions ñu def ko ci biir benn salle 6 millions ñu jël xaalis def seen poche waa loolu si biir corona loolu mooy waxu te soo seetee seen morom yi nekk si àll ba si euh, yeneen réew yi ñoom ñëpp dañu jaay li ñu am di ko ci def waaw ñoom ñoom ñu jël période boobu ku ci mën a def. xamu ni nga ko waxee corona business la xale yi tuddee xam. Mm-hmm. loolu loolu loolu loolu loolu baaxul. te aar nag aar lu rafet la. Mhm. lu rafet la te gis naa ne Ndoye Rokhaya da nga investir lu bëri. ci euh, action bonne action yi ngoon na def comme ni ko Badiane waxee euh, di may ay masque ay gel hydroalcoolique euh, di may ay machine sax pour pièces yi comme ni mu ko waxee mais bëggoon naa xam yow fan nga jëlee say ressources. comme nu ko Abdou waxee c'est un don de soi-même d'abord soo nekkee di def comptabilité économique li nga def di nga taxaw. mais ñu mel ni laboratoire Agit Art moom jàpp na si parce que liggéey conception la d'abord avant réalisation donc dès le mois de mars problème am on a utilisé notre intelligence pour xool naka la ñuy defee suñu loxo pour participer si ñiy indi solution au niveau du laboratoire Sahara aussi parce qu'on est temps aussi de Sahara ak prof Cheikh Niang moom tam mi ngi sur le terrain depuis mars à Touba fii à Dakar d'ailleurs ak Badiane Ami ñi ngi pari ay atelier de formation yu ñu doon def lundi mardi mercredi pour former mille volontaires pour région médicale de Dakar par rapport à l'écoute la sensibilisation ci corona bi ku mel ni aussi waa tamit biñ ko exposé suñu projet ñëw na mu jàppale ñu parce que bari na ñuñ ko wax bari na ñuñ ko wax feebar bi ñëpp la tiitaloon ñëpp la jaaxaloon ñu bari dañu reculer nañu ah loolu ngeen bëgg a def c'était pas rassurant c'est pas le moment pour ñun ñu ne ñi ngi def procès kii accepté nañu woon jàppale ou pas ku nekk tamit nit rek nga peut-être engagement yi bokkul gëm-gëm yi bokkul ku ne am nga droit tamit nga ragal mais bari na ay structures yu ñu waxal au départ euh, accepté wu ñu ànd ak ñun am na aussi waa benn ONG bu nga xam ne day militer par rapport à à changement de comportement social ak ak ak valoriser nekkinu jigéen sur tous les plans ñoom tam biñ leen ko waxee ak la coordonnatrice Hawa Ba Elle a été sensible et tout de suite elle nous a dit on va vous accompagner. Peut-être aussi li tax mu accepté ñu accompagner li ñu doon proposer dafa originaloon parce que dañu wone ne art du pour rekk taxaw xool rafet ne waaw rafet na art arme la art outil la et su fekkee comme nu ko gouvernant yi waxee dañu nekkoon ci guerre normal na tamit ñu xool ak outil artistique bi nag lañ ko mun exploiter sur le plan pédagogique pour def ay propositions yu participer ci éveil des consciences par rapport à la communication visuelle les messages yi nga xam ne moom lañ peinture ci mbedd yi ci tali yi ci mur yi par rapport aussi à sur le plan audiovisuel parce que ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux am na film yu ñu def en langue nationale film wolof bi Badiane Amy Gning nga siy gis muy wax di expliquer geste barrière si milieu spécifique ou marché parce qu'on n'a pas voulu embrasser large dañu xool benn environnement de travail particulier ñu def suñuy action dans cet environnement donc si travail de co-construction ak ñoom bàjjan yi ak socio-anthropologue yi on a mis en place ay gestes barrières spécifiques comme je l'ai dit déjà ci milieu kiy jaay ci marché bi yan attitude la war a am benn que mu nekk feebar bi ou pas par exemple kenn du mélanger eau de javel ak saabu moo xam saabu pëndax la wala liquide wala gel donc loolu dafa baax jigéen yi xam ko parce que si feebar bu nga xam ne la daf ñuy ramener à la propreté à l'hygiène et euh, pour gérer propreté ak hygiène dañuy utiliser lu bari eau de javel lu bari savon c'est bien que jigéen yi koy utiliser ñu xam loolu donc ça c'était un message fort ci biir marché bi peut-être beneen yaa a eu des communications où on a di que voile bi ma mun na servir de masque mais soo xoolee jigéen bi xëy këram ñëw liggéey ci marché voile bi mënul nekk masque pour moom risque la parce que voile bi da nga koy tournoyer de tous les côtés et day wadd su fekkee da nga sol masque pour confiner sa postillon nga jël voile bi dans le marché tout le temps mi ngi wadd tout le temps yaa ngi koy retourner tu es là-bas du matin au soir finalement c'est une bombe peut-être ailleurs ça peut servir mais ki ñëw liggéey ci marché donc euh, obstacle la donc il plein de travaux comme ça qu'on a fait pour jéem a xool aussi bien si ki ne si marché que si kër yi désormais mhm. comment on va faire pour vivre avec waaw moo bëggoon xam aussi ndax bi ngeen yaa ngi ne au début euh, jot ngeen euh, laal ay organismes pour ñu accompagner leen ci seen euh, initiative ci seen projet est-ce que le ministère de tutelle a été saisi le ministère de la culture bon man tam c'est pas le le lieu de faire un procès ki def na lii ki deful lii loolu intéressé wu ñu en fin de compte en fin de compte lu ñu intéressé mooy nekk na. Mm-hmm. et pour que mu nekk aussi waa jàppale nañu pour que mu nekk laboratoire Agit Art jàppale nañu pour que mu nekk laboratoire Sahara institut de sciences de l'environnement bu UCAD jàppale nañu pour mu nekk bàjjani les bàjjenu gox nous ont appuyé mhm. donc man loolu laay préféré ma retenir ko c'est important mais nekk na mais pour mu woy waaw nga dañu topp toll ci jamono joo xam ne dañuy wax résilience comme ni ko Abdou waxee y un fond force Covid 19 qui est là waaw mhm. c'est vrai que pour jàppale la ñuy impacter mhm. mais dafa war a jàppale aussi ñi nga xam ne ils ont donné le meilleur de mêmes pour xeex mbir mi xam nga affaire bi ñaar la am na ñoo xam ne ils sont impactés parce que affaire bi dafa ñëw daanu seen kaw am na aussi beneen catégorie d'impacté ñoo xam ne la ñu amoon lépp la ñu jël dugal ko ci xeex bi c'est pour looloo tax may laajte ndax euh, euh, le ministère de tutel les autorités dugal nañ ci seen loxo parce que dama jàpp ne war nañ cee dugal seen loxo ah, wax nga dëgg te yéexul euh, moom moom xam nga moom waa Ndar la moom waa Ndar la Ndeye Rokhaya waa Ndar la te xam nga waa Ndar ñoom dañuy dañu am civilisation <laughs> man nag saalum saalum laa li nga wax nii Euh, maa ngi ñaan yàlla euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo yore ministère wala ministre bi wala ñi xam ne ñoom ñoo koy toogal ak di ko déglool parce que buur day yëddu buur lépp loo def ci biir circonscription am dana la dégg dana la dana ko yëg donc suñu yëgee suñu waxtaan wi ñoom ragal naa ne war nañoo fexe nu ñu def ba jàppale ñii c'est pas encore trop tard tu parce que ñoom dañu door liggéey moo tax mënagul a defal évaluation. parce que tout à mm. l'heure euh, question c'était de dire est-ce que tu peux faire une évaluation à mi-parcours on n'est pas encore à mi-parcours parce que ne sait même pas à quel niveau on est en termes d'infection parce que démb gis naa ñu ne léegi pour ñu pour ñu càmbar la seet ndax am nga feebar boo leen di di nga fay quarante mille. Mm-hmm. ah quarante mille salaire la fii Sénégal. Euh, donc ñi néew doole. ñooñu fu ñu jëlee quarante mille pour faju kon kañ li li fi des nga xam ne mën nañu koo def euh, te lu mën a nekk la liggéey bi nga xam ne door na ñoom fonds yooyu ñu yore nañuy woo ñi ko yelloo ñu jàppale leen ci ndax ñoom ñu mën a démultiplier liggéey bi parce que loolu mooy rôle laboratoire laboratoire c'est un lieu d'expérimentation donc ñoom seen expérimentation gis nañ ne am na ay résultats en articulation avec les bàjjanu gox gox man sax xaw ma woon luy bàjjenu gox il faut soxna si après mu wax ma rôle lan mooy bàjjenu gox parce que man xaw ma ko woon. dama dégg rek Ablaye Wade doon ko wax waaye man xaw ma luy bàjjenu gox. Mhm. donc moom itam euh, am na am na ay concepts yu mel noonu yoo xam ne si suñu si sunu culture la bokk ñu war koo nag feeñal muy bàjjanu gox euh, keroog mu may waxi doomu sagar kii euh, est différent d'une poupée parce que ça n'a pas le même rôle. Mhm. moom am na lu mu ciy liggéey moom mi Ndeye liggéey bu am solo qui est culturel. Euh, donc c'est je pense que c'est c'est des lieux d'incubation euh, qui doivent être soutenus euh, pour que li ñuy liggéey ñu mën ko démultiplier dans toutes les régions du Sénégal et dans d'autres endroits qui ne sont pas que des marchés mën nañ ko yóbbu ci gare routière yi mën nañ ko yóbbu ci grand place yi di leen wër di leen expliquer parce que li ma gis nii ba président parce que xam nga aussi taux de croissance zéro. kenn xamul maara déen si yàlla bu ñu yegg foofu. ah kooku moom mooy rek on est mort. donc mm-hmm. comme il faut ñu génn liggéey mais li ci des mooy nit ñi am conscience jël les distances qu'il faut pour mën di liggéey ba pare teg ci euh, sauver sa bopp ci sauver sa njaboot sauver sa réew ci feebar. Mm-hmm. loolu nag la ñuy di dox. donc man ànd naa ci nga wax nday roxee da ngeen war a bind kon suñu leen woowul da ngeen war a bind ministre bi xamal ko ne ko liggéey bi fii lañ ci toll euh, te tam xaalis bi ngeen di joxe ñun ñoo ci gën a <coughs> loolu de la xalaat euh, juróomi simili moo ñu desee euh, mm-hmm. Badiane dama mm-hmm. lay bàyyi rek nga Euh, wax sa kàddu gu mujj mais surtout par rapport ak li ñu li Abdou wax sànq mooy euh, li nga xam ne moom lañu ñu sur le terrain yéen yéen a nekk ci terrain di dem ci marché yi di dem ci mm. tous les lieux de vie fépp fuy dajale nit fépp fu am mbooloo di sensibiliser li ngeen gis est-ce que dal na xel est-ce que euh, de mën nañu am njott ne feebar bi fi yekk weer wala ñaari weer dinañu tàggatoog moom. par rapport ak li ngeen gis sur le terrain. non à deux minutes. deux minutes. waa waxteen xaj li may dellu si mooy gisuma lu dal sama xel parce que mbas bi daf ñu engagé te sax li nga xamante ni ne man moo gën a ma am yaakaar sax tuuti sax dala sama xel mooy xale yi nga xamante nii ne man ñoom laa yaakaar fi mu toll nii mais xale Sénégal ñoom laay yaakaar ñu sawe mag ñi man mii bàjjan ami ñu defar naa 300 masques sama doom defar na 400 masques te étudiant la étudiant la day jàng ànd ko ak ay moroom def ko séddale ko ci ci koñ ba ku ñu naan mee mën a jonn defar na ay mask joxe ay paan joxe ay raxasu Ndeye Mariane jàll ak chef de quartier am defal nañu ay masque joxe ko lépp ci pour jàpp ci bàjjenu gox nag moom la sama frère bàjjenu gox paaka ñaari boor la moom bàjjen mooy baay bu xuloo amee bàjjen bi la ñuy woo mu ñëw ñu ñooy recenser nit ñi pour ñu dem ñakk seeni doom parce que fi toll nii nag. ñàkk bii nga xamante ne moo fi kii xal nangootuñ ku feebar nangootoo dem ñuy visite nangootuñoo dem ñu yóbbu seen doom ñuy ñàkku nangootuñoo dem parce que dañu yaakaar na bi ñu demee fekk fa feebar bi mu jigéen wérut yi muy xale ndaw yi ñu war te nag ñàkk yi la nga xamante ne moom la daan def bu ñu ko deful mi ngi fi te dana ñëwaat muy yow ngas xureet xale yi bari boo leen ko waxee xamuñu ko yaa ngi dégg lépp mi ngi ci biir te nit ñi nangootunoo dem hôpital ñoo bëgg nag ñëpp xam ne feebar bi fa mu nekk feebar bi fi mu nekk ak fan yi fajoo nu benn maa ngi gërëm tamit docteur ndey Maguette ndax moom tamit mu ngi jàpp ci ñun booba léegi si di gërëm ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que ñëw na fa keroog ci suñu séminaire bi ñu doon def ñëw na fa si ñu wax dëgg yàlla ah maa ngi leen di sant daal di sant ñëpp di sant tamit sama borom kër danga sant baax parce que moom ma permettre pour may man di dem fi may dem di gërëm waa Caaro yépp yëmbal macha allah. waa kay Ndeye Rokhaya en euh, tey lan mooy perspective bu Green Riposte boo leen fi jógee quelles sont vos ndax te feebar bi mu ngi fi jógee gu fi. Mhm. donc euh, loo xam ne mi ngi fi jógee gu fi da ngay jàng nooy def ba dëkk ak moom loolu kese moo fi des. et Green Riposte du rekk par rapport à la crise sanitaire. mais Green Riposte c'est par rapport à tous les combats écologiques gis nañ temps yi y a beaucoup de de secousses par rapport à la gestion des ressources naturelles moo xam foncier bi la moo xam ci côté littoral bi la moo xam par rapport aux ressources phoniques dégg nañu problème bu fi am par rapport ak euh, yi donc euh, du jeex lépp lu nga xam ne laaj na riposte écologique ñun dinañ ci taxaw sur le plan artistique merci. Mm-hmm. kon nag dama leen di jaajëfal yéen ñëpp ci seen teewaay ci émission bi waxtu wee ñu xoj journal 17h léegi mu commencé jaajëfal Assane Thioune mi féete woon ci machine bi te di leen ñaanal ngoonu jàmm. jërëjëf.